da nga doon nourrir ci suuf sa ambition présidentielle. mais bien sûr yow yow yow yow yow convoqué nga. déglu ma ma xaaral rek. les élus may man maa ngi ciy ñëw maa ngi ciy ñëw. waaw waaw waaw bàyyi ma ma dugal la. convoqué naa les bàyyi ma dugal la. waaw ma dugal la. tamit. xëy na xëy na Macky xaaral rek xëy na Macky Sall li tax mosul Euh, mettre au au au centre de son système mu bàyyi la à la périphérie nit mënoo nekk ak moom mu nekk président de la république xamoo lu mu mébét yow nga nekk ci biir di nourrir mébét. booy nourrir mébét da ngay génn te loolu la wax Idrissa Seck à partir du moment où vous décidez d'être candidat vous devez en tirer les conséquences quitter la coalition xam nga yow. Euh, woo nga Sali. xam nga Soma de de une vingtaine de maire mhm. xam nga def séminaire euh, wax fa waxu candidature. loolu c'est récent bi ma déclaré la. moo tax je te donne la bonne ah, ah, information. Ah, ma ma ma envoyé un SMS. non non non non je te donne la non je te donne la donner la bonne information. waaw xaaral da nga may bàyyi ma wax après yow nga corriger ma. parce que yow yaa ko dund. allez alors nga invité leen nga wax fa waxu candidature en tout cas c'était ambigu. loolu amul Mahmoud Saleh vous nga ne loolu amul. parce qu'on leur a rapporté mais Mamour Salé daf ma comble. xaaral rek yow Arona ah yow tamit man man damay préparer émission. ah non c'est dangereux. non c'est pas que ce soit ah dangereux non non non non. Mahmoud Saleh su ma convoqué ñu nekk dans le cabinet. yow naka nga ci mën a jot jotee. waaw Arona bàyyil ma wax après nga corriger ma. vas-y Mahmoud la la convoqué la nga ne loolu amul. qui t'a donné les informations. mais mais bu bu bu nga jàkkaarloo journaliste naan kan qui t'a les informations xanaa kii commissaire yàgg su ma woowoon sax du ma ko jox dara. <laughs> voilà nga ne ko loolu amul yow yaa ngi déclaré nga ne ce sont des maire ñoo proposé sa sa sa candidature on a même rapporté que dem nga fi représenter président ci ay jàng nga ne sëriñ bi na la ñaanal parce que da nga bëgg a nekk président est-ce que président jotul wax yooyu yëpp ba loolu tax il n'a pas voulu t'utiliser utiliser déglu ñu ñëw ci utiliser bi fi nga daaneele dama ni man su may compétence dépassé na ay benn ministère wala benn direction c'est pas l'intérêt du Sénégal loolu indiwuma fi léegi nag ma ñëw c'est-à-dire ku la ku la mën a informer ci lii dafa nekk chronologiquement deux événements yu amul mm. en 2019 j'avais invité des maires chez moi à sali à ma résidence vous interrogez tous les maires tous ces maires là li ma leen wax mooy 2019 du ma xeex ak Macky Sall 2019 moom laay jàppale. mais ma ne maire yi en 2000 ñu ngi ci 2019 xaaral je vais ñu ngi ci 2019 ma ne maire yi 2019 du ma leen jàppale duma ma du Macky Sall laay jàppale. parce que bi ma leen convoqué y avait au moins 160 euh, maires ñoom ñëpp ils étaient inquiets ndax damay déclarer suma candidature. Bon, ils ont dit une deux étapes laa ko def deux invitations mm -hmm. je te donne les bonnes informations maire yooyu ba ñu ñëwee d'aucuns étaient très inquiets ma rassuré leen ne 2019 bi ñu jëm Macky Sall mooy suma candidat te réunion boobu laa leen waxee ne su amee deuxième mandat euh, euh, euh, rappelé mun naa la jox la liste de tous les maires ma ne su amee deuxième mandat mooy fin wu mandat en deux mille vingt quatre dinaa samp suma ndënd. Hmm. su ma ambition man présidentielle moom président ci boppam moom moom moo ko njëkk a xam parce que bi ma ñëwee ci moom nekk candidat présidentiel comme moom li mu njëkk a wax sénégalais yi mooy candidat la woon te mënoon na ko loolu mu ngi ci net bi tamit soo demee di nga gis vidéo moom moo ne man candidat laa woon te mënoon naa yor Sénégal. mais pourquoi man ma war a mun a am ambition mun a yor Sénégal di xaar mu jeexal quatre deux mandats yi dem yoonam j'ai été très fidèle ak moom durant ces dix années fidélité bi mooy lan Macky Sall musu musumaa jox un penny pour ma politique un penny un franc un million musu ko teg suma loxo ne ma demal nga def sa politique ma ñëw fekk euh, à yi le parti était mort. ah dégg naa def nga fa xaalis bu bare. dégg ma ñëw rek le parti était mort. Hmm. ma ñëw jël jigéenu APR yëpp amul ku ma ci financé wul amul ku lekkul suma xaalis ma ñëw jël jeune biscuiterie yi defal leen ay formation utal leen ay liggéey def fa les forums de quartier financé fa ay jeunes def fa ay projet formation yi def fa ay ay ay ay donation de de de permis de conduire. lu nekk ma def ko ba parti bi commencé waat jóg loolu mooy fidélité mais suma ambition moom ci boppam musuma ko ko nëbb saa yoo fi jógee mais dama bëgg jël réew mi comme yow liggéey ko parce que yéene bi ma am ci réew mi xëy na sax moo ëpp yéene ba nga amoon ci réew mi Macky Sall mus na ma ne duma la may dara lépp yaa koy xeex en politique ma ne ko bon dig ma gis ci terrain ma xeex ko suma ambition politique musuma kaa. parce que y un adversaire même qui dit que à Biscuiterie ci local yi vous avez beaucoup dépensé. et que dundalaat nga un peu parti bi. parce que je le parti était, était, à terre. ce que j'ai donné ci ci ci ci ce que j'ai injecté ci affaire dimbali soxna yi dimbali xale yi ordonnance yi c'est plus de cent millions te Macky Sall joxuma ci dërëm te chaque jour ngeen dégg. ah am na am na géwélam bu koy bu koy bu koy distribuer xaalis partout mais man musuma ci boole. géwél ba buy distribuer xaalis ah chaque jour di ngeen gis ñuy distribuer. ay millions waaw mais du géwél. kooku c'est un militant il est en charge de l'organisation de la mobilisation. bu bu waxee nit bul tuddee nit géwél comme ça chaque jour daal di nga gis. Ah, sa affaire buur yi mu ngi bëgg a génn de. déglu su génnee tamit <laughs> dëkk buur la ñu nekk bul <laughs> su génnee tamit dafa war a génn parce que yaakaar naa ne am na valeur yoo xam ne je pense que il est temps que sénégalais yeewu ci lu bëri wax waxeet mënuñu ko. d'accord fii ci réew mi bañ nañ ko ci Abdoulaye Wade mënuñu ko nangul Macky Sall mais Biscuiterie euh, c'est c'est étonnant quand même que local yi ak tous les moyens déployés que vous n'ayez pas pu convaincre les les les, les populations. là non attends euh, les, les les les, les ku ku ñàkk ku ñàkk sa mairie fii. Hmm. durant les locales de deux mille vingt deux Macky Sall la réew mi loolu c'est clair et net. du du yow la ñu mais c'est tout Dakar qu'on a sanctionné et c'est Macky Sall qu'on a sanctionné mais Biscuiterie yi tey jii suñ fa defaatoon élection je pense que je vais remporter les élections. Hmm, parce que Djibril Wade est fort là je salue Djibril quand même parce que c'est un homme social il a impacté les jeunes la jeunesse. il l'a impacté et je suis je suis très fier de lui et puis bon war na góor góorgóorlu ci secteur yu bëri mais am na yoo xam ne du ay prérogative am état bi moo ko ci war a jàppale mais en dehors de sa c'est un homme aimable adorable il est bien et nous collaborons ensemble nee naa man maa njëkk a ci APR man maa njëkk a ñëw ci moom ne ko je suis à ta disposition tu es notre maire hmm. waaw mais pour revenir ci li ma la wax Euh, je pense que su fekkee euh, Mahmoud Saleh m'a convoqué. Hmm. dans son bureau. la fay waxante dans le bureau du président de la République. Hmm. su ma la ko waxul Mahmoud Saleh moom waxul la ko. Hmm. gisuma keneen ku mun a xam. lan mooy et puis c'est pas une première fois Mahmoud Saleh bi nga xamee ne président dénk na ma pôle. pôle mine énergie. donc Mahmoud Saleh mosul la convoqué. pour mais plusieurs fois moo tax ma ne la ah. plusieurs fois. il a été mon directeur de cabinet. et puis très bien professionnellement li ma apprécié ci Mahimoud Saleh mooy bi mu nekkee directeur de cabinet dafa jëlaat ku nekk ak xam mu jox la ko mu ñëw di ma topp pour ma jël chef ma nekk chef pôle énergie miine agriculture mu ne ma lii yow président ci boppam moo ne moo lay jox euh, portefeuille bi dans le cabinet pour nga gérer ko ko mais donc combien de réunions laa def ak Mahmoud Saleh et puis Mahmoud Saleh ban je pense pa que ah, je par respect à lui mun na ma convoquer di ma wax man suma ambition politique ambition wu ambition wu naka la tuddati ambition présidentielle bi ah war naa ko dindi teg ko fële. non c'était pas pour ça c'était ah, pour leeral euh, cette cette histoire avec les maires. bon ma wax la tamit beneen ma wax la ah, beneen gis nga affaire suma ambition bi. ça a toujours euh, quand même euh, ça toujours fait. Euh, un débat au palais dama dem Chine parce que je suis vice-président de la convention internationale des risques hasardeux mooy fu am volcan fu am euh, tsunamis fu am euh, yenn tremblement de terre yi bokk naa ci scientifique yi nga xam ne ñun la ñuy jël yóbbu Chine ne jox leen ñu si seen xalaat donc man maay vice-président bi c'est c'est une organisation mondiale y presque toutes les nations surtout les nations européennes ma jóge Chine parce que su ma demee ci convention boobu may dem ay province jet privé lañ may jox may ñibbisi ma nekk ci A380 A380 euh, bu bu français yi loolu moom trois étages la maa ngi woon première classe ma toog ni ma toogee nii xam nga première classe bi soo toogee deuxième classe bi ma nga sa ginnaaw rek ma gis Mbaye Ndiaye romb. Mbaye Ndiaye euh, Mbaye euh, romb ministre d'État nuyu ma dem. Mimi Touré nuyu ma dem Pape Mayel nuyu ma dem Mboon Ngom nuyu ma dem ma leen yéen foo leen jóge ñu ne ma dañu ñëwoon ci euh, Sénégal Sénégal dañ ko invité woon ci kii parti communiste bi anniversaire parti communiste bi donc moom la leen président yabaloon. après ni ma toogee nii ñoom ñëpp ku ci nekk ñëw wax wax dem toogaat wax wax dem toogaat moi j'ai pas bougé ma ne leen man may vice président mondial ci affaire au risque hasard de convention bi mais Chine mooy suñu headquarter foofu mooy suñu quartier général mooy suñu siège donc loolu moom ma fi indi woon parce qu'on avait on devait par exemple euh, donner nos avis ci tsunami yi nga. xam ne probablement mais mais en lan nga bëgg a wax foofu. moom laay ñëw. Mm-hmm. léegi bi ñu demee ba dellusi si ñu toog trois mois laa mun naa la wax li ma Mahmoud Saleh convoqué woon mm-hmm. ma ñëw Mahmoud dem ma mais Arouna yow président bi daf la guuxal la qu'est-ce a ko guuxal <laughs> la damay guuxal lu ma def mu ne ma en tout cas c'est un problème de la Chine ma ne ko affaire Chine man de demoon naa fi Chine mais bi ma demee toog na six mois yoo xam ne tudd ma pourquoi parce que bi ma dellu see Chine moom moo ma ne dañ ko ne man dama demoon Chine pour uti xaalis pour ñëw contre ko en en 2017 boobu temps 2017 la ñu wax waxuñu 2019 pour élection yi comme ça. Mmh. et c'est ce qui se passe au palais tous les jours. et vous pensez que ñooñu romb la ci avion bi la. mais kenn la ci war a doon. ci ñoom. kenn la ci war a doon ci ñoom wala ñoom ñëpp. Mahmoud Saleh Mor Ngom Aminata mu wax ma ko Mbaye Ndiaye Mor Ngom ñoom ñëpp nii lañ ma rombee ci eh. avion bi eh. bi ñu ñëwee et c'est pas la première fois dem naa fi kii Genève ànd ak euh, aussi Doudou Ka di rencontrer un partenaire un ami euh, euh, bu tudd Alexandro c'est un russe un milliardaire russe euh, ce milliardaire bi président jëlee nguur bi dafa ne woon dafa fan président donc nañu ñëw ñu ñu wax ko lan na mun a dimbalee Sénégal boobu tamit ba ma delloo Genève ba dellu siwaat la même chose ñu ne dama wuti woon xaalis pour contre ko en 2017 donc ambition présidentielle man musuma kaa nëbb mais j'ai été loyal loyauté bi mooy. waaw mais à l'étranger parfois dans des forums aussi da nga doon contester euh, certains choix du du du gouvernement du du du Sénégal tamit Arona fan à l'étranger ah, man fan ah, fan. mooy li ngay wax mooy li ngay wax nii rek ne. mais su ma dañ ko rapporter peut-être plusieurs. Euh, convention boobu duñ fa sax tudd Sénégal. Hmm. parce que man dañ ma recruter aux États-Unis biñ may recruter ma bokk ci convention boobu boobu professeur rechercheur enseignant laa woon à l'université d'État de la Caroline du Nord suma laboratoire yi.